waaye damay dugg ci waa Pastef. Mhm. ñun Ousmane Sonko dafa war ñi nga xamante ni ñooy waa Jomaay président Thierno mhm. Alassane Sall génn mhm. kii voilà noonu la non noonu non non euh, Thierno kii la Moussa Moussa. moo génn ñaxtu ah, euh, nee na nee na ku tudd Charlie Émile ah. euh, Cissé. waaw ah, nee nañ dañu na war. ndax dafa ñëw mun leen Jomaay président daal soxlaatuma ko. <laughs> mën ngeen daal di def ne man daal Pastef laa am ci la ñuy dem ku bëgg ñëwoon ñëwoon ñu xool la ba xam dañ la dugalam déet mais Diomaye président moom mënut a dem ndax man na ma ànd ak ñu dem ba fee ngeen war ma. kon <laughs> yaa ko waxee nii <laughs> waaw la waxee de <laughs> noonu la waxee ne day bañ ñu war ko léegi est-ce que bañ ñu war ko war naa tax mu éliminer Diomaye président dem ak euh, Pastef wala waaw xam nga nag Assane gis nga politique nag hmm. politique la tudd hmm. dafa am science. lu mhm. ñu tuddee science politique. mooy da nga koy jàng di teg ay stratégie mhm. yaakaar naa loolu sax tey Pastef boo amee candidat nañu waxante dëgg stratégie politique moo ko ci génne. Hmm. waaye alir bu mu jëloon nekk ci mbedd mi di dóorante waaw di gatsa gatsa hmm. loolu munu ci woon am candidat hmm, te loolu Macky da ca jëloon ferme ak lu mën a xew kii moom du dem parce que jàppoon ne kooku rek la mais teg ay tig tagam moo ko mën a génneel candidat ba tey mu téye pouvoir bi nii tey c'est-à-dire politique moom bu la ci kenn nag fii ñu toll fii gis nga fii coalition yi di formé wu nii eh Assane fii neexul dara de gis nga coalition yi nga gis formé wu nañ rek waaye affaire bi jeexagul day am tig tak parce que gis nga pion yi fii lañ koy placé yow fooy placé kii foo koy dugal ah man samay gars yi foo leen di placé ñëpp ay calculer mhm. wax dëgg yàlla nag man jàpp naa décision bi fu jël mhm. ci politique moo gën ci ñoom moo gën ci ñoom lu tax hmm. euh, ñoom ñoo yore doole ji yëpp loolu mooy dëgg coalition bi moom buñ doon cent personnes quatre-vingt-dix yi waa Pastef ñoo ko liggéey biir na ma ne xaalis bi ñoo koy joxee dëgg la gars yi dinañu cotiser waaye bu wàcc ci terrain bi jotee ñoo dàq wàcc bu joxe jotee ñoo dàq joxe seen leader euh, doy na daal maanaam ku neex a jaay la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw Ousmane Sonko man dama jàpp ne sax moom moo ëpp doole parti Pastef gis nga Pastef bu jëloon beneen candidat teg ko nii. Mm-hmm. Ousmane Sonko demal boppam. Sonko day gañ a Pastef. waaw maanaam ëpp doole parti bi cest à leader bu toll noonu nag yow boo ko amee. koy wax ak ku nekk yaay teg loxo ci table ci wax dëgg yàlla nag loolu <laughs> mooy logique dëgg yàlla léegi nag mu wax leen que parti bi mooy locomotive bi war a diri hmm. parce que politique dafa am ay risque ni mu amee avantage la amee risque parce que hmm. gars yi mën nañoo àndandoo <laughs> ba dem assemblée defal nañ ko yeewi nekk fa majorité hmm. ñu koy ndékkali saf xorom ah, ñu xuloo ñëpp rocceeku dootoo amati majorité ah, nga nekk minorité wax nga dëgg wax nga dëgg te da koo dal intercoalition la ñu def am vingt 82 députés di balancé ñu dugg assemblée quelque si intérêt yi commencé lii gars yi écarté wu bàyyi leen. mu mënatuñ dara. mais sëñ bi loolu nag yow bu dee jëlaatoo ay mesures pour mu bañ laa dal. Hmm. mais dañ naan la yow bàyyil politique. bàyyil politique wax nga politique moom xoola dafa am intelligence poli dëgg la nag am na élégance. Hmm. boo xam ne ànd ak aw nit ba yàgg nga xëy na bana mais ni ma dégg ñoom ñu waxee waxuñ na bàyyi nañ mais dañ ne. Hmm. nañu jël parti bi mu nekk locomotive bi ku bëgg na ñëw. mën nañ la jox sax ndomba tànk te bokkoo ci parti bi. waaye na nga yëg ne ndomba tànk bi parti bi moo ko moom. Hmm, boo bàyyee. yow boo xëyoon bàyyi. Hmm. parti bi day téye yëfam. Hmm. pour man boo naru la bàyyi loolu. kon da laa bëgg a ñàkk parti bi. ah ñàkk ñàkk sa majorité la. ñàkk sa majorité waaw loolu ñàkk sa majorité la pas ñàkk sa parti. parce que assemblée boo fa amul majorité amul njëriñ moom laa wax sànq gis nga gouvernement bi bu amul majorité foofu. yàlla xam na ne du am njëriñ ci moom parce que loo fa indi bu leen neexee ñu delloo la ko. Mm-hmm. parce que Sénégal ni ñuy politiquer àndul ak élégance mooy boo ñoom bu la sa jëmm soofee nii. Mm-hmm. même boo defoon lu baax duñ ko jël. Mm-hmm. dañ koy sànni tubaab yi dangay gis ñoo xam ne bokkuñu fu ñu jëm ci politique. am benn situation bu xew. ñoom ñëpp ñu booloo dajaloo ci ba loolu jàll ku nekk demaat. loolu amul fii Sénégal man loolu daf ma yéem. man gis naa Sonko jël benn position ci Thiaroye 44. ni tubaab yi doon massacrer suñu maam yi. Hmm. lu bon lu ñaaw. tubaab yi def ci lu bon lànk ni duñu euh, reconnaître ñooñu te ñoo leen tiire rey leen. mu jël ci décision yu courageux ba delluloo Macron gannaaw sëñ bi lu jafe. di ñu limal ay six personnes mu dóor ci taabal ji ne leen seen lii da ngeen koy delloo ji fale parce que la woon dafa won ni ñëpp ngeen di reconnaître quelques jours après ñoom ñu dellu ginnaaw. reconnaître ñëpp mu am ay politiciens sénégalais yu koy attaqué ci loolu naan ko bala ngaa lijjanti meurtre yooyu lijjantil 80 yi dee bu barki man sa ma xam ne nii cest dire ana élégance politique cest dire fii léegi intérêt nation moo taxaw tegal fee affaire politique bi ñaara mën a nekk nga applaudi wala nga bàyyi mu jàll nga sëgg ñu xam ne nekkoo ci mu jeex mais mënoo attaqué loolu hmm. bi ci des mooy bi may wax léegi ci wàllu muur yi hmm. am na décision xam ne bu ko jëlee mu nekk loo xam ne ay way gëm la ñu soulagé hmm. en tant que politicien yow sa technicité ak sa élégance du la may nga contrer décision boobu soo mënee nga noppi ci léegi nag assemblée nationale boo fa amul majorité bés dana ñëw nga indi fi loi boo xam ne dañ la koy taxañal. Hmm, sànni sànni la ko. Hmm. orientation budgétaire débat orientation budgétaire bi nga xam ne ministre euh, finance moo ko waroon def. Hmm. président Diomaye bi mu ko yebalee mu dem assemblée nan lañ ko def dañ koo delloo ginnaaw xam nga nañ ko wax. Sonko moo ñu wax ne nañ defar loi bi wa illaa Euh, mu defee ko ci mbedd ba moo ëpp qualité. c'est-à-dire ku affaire bu suufi bii quoi respecté wu ñu premier ministre moo ñu wax lu ñu neexul léegi yow ministre bi duñ ko recevoir dàqu te orientation budgétaire boobu dafa am lu muy côté état bi. Hmm. loo xam ne intérêt national la nga def ko ci lu ñàkk fayda parce que sa adversaire politique dalaa wax lu la neexul quoi yow yow benn nit naan institution bi la ñu war a respecté yow kiy wax ak yow institution la. Hmm. exécutif la yow heure bu la neexee taxaw ne ko waxoo dëgg. te moom institution la mais nit ñaa ngi la koy nangul man gis naa ñoo xam ne dañuy toog fii ne président li mu wax du dëgg amul. waaw Ousmane Sonko li mu wax du dëgg te moo tax institution lañ. Hmm. ah léegi yow boo nee député yi seen lii bi amul qualité ñu taxañ ministre bi ne ko doo dugg assemblée. yow ku mel noonu dangay yore nguur nga ne soxlawoo majorité. doo liggéey dara. Hmm. bis boo xëyoon sax ne. bon man damaa bëgg tukki ñu ne la doo tukki boo ne damay tukki bu subaa boo ñëwee duñ la recevoir assemblée. Hmm. c'est-à-dire loolu moo tax politique gu Sénégal bu la ci kenn assemblée bi ngay hmm. téye. Hmm. yore exécutif bi mën a liggéey dara lenn rek lañ soxla mooy na nga jub. di jël ay décision yoo xam ne dafay favoriser peuple bi. mais jàpp naa ne ñoom noonu ñu àndee woon nekk benn coalition ba gañe réew mi. te euh, bopp ba Pastef fa ca newoon. man pour man wàññiwul woon dara ñu àndaat dem député Pastef nekkaat ca bopp ba mais yàqul dara pour man daal aayul mënoon nañ ko def. locomotive bi boobu bu ñu gañee da nga yaakaar doo si dara comme ça ku demee ni Moussa Diop tey ji bu demoon si tur Pastef bu gañee dañu jàpp ne Pastef fa gañee ak moom gañewut. waaw il wan leen di saa loxoom demal boppam. ah mais bi ñuy ñëw lan lañ leen wax coalition Diomaye président xoolal benn nit. lañu la wax ne la kii kett la mën nga ci topp nga ne d'accord na nga ñëw mu gañ a fauteuil bi téye lépp te meroo ci nga nangu ko mais kon bu ne la nañu demaat ci député yi te moo ëpp sécurité nag wax dëgg yàlla moo ëpp sécurité euh, ndax tey ñun buñ coalition bu ñu defee benn coalition fukki parti nga foog ne bu ñuy séddale député yi damay xëy rek di jël ñu ma neex non da ngay xool Assane fu mu dëkk mu jox la ay gaam gaa yooyu ñu lijjanti CV yi xool di pour nga classer affaire bi calculer ba teg ko ci axe sérieux problème la. ci diggante bu xat bi. Mm-hmm. léegi nag euh, Pastef am na cadre bi ba pare Pastef am na base am na fépp déjà moom day lalu rek. Mm-hmm. ñu ajouté ay bànqaas ñu toog ci. Mm-hmm. loolu da leen di noppal gis nga forclos bi ñu leen def ci seen euh, list député yi nu amoon. leader yi lan moo tax ñu dindi leen. problème mu position parce que coalition moo ko waral. Mhm. fii waa taxawu ñoo fi dugg fii waa Pastef fi nekk fii waa Pire fi nekk ah waa taxawu lii moo leen arrangé. Mhm. waa Pastef bu ñu bëggee dindi lool waa taxawu dañ naan mais Pastef mënuñoo xañ suñu c'est-à-dire loolu mooy problème mu coalition amul sécurité. Mhm. moo tax pour man jàppoon naa ne mënoon nañ àndaat ñu dem wuti seen euh, majorité. su ëllëgee boo nekkee assemblée wax fa ay dëgg. ñu mere la génne la su boobaa sénégalais yi seen bopp ñooy jàkkaarloog ñoom. sénégalais yi jàkkaarloo ak ñoom. Mm-hmm. mais nag bu fekkente ni politique moom loolu la. incha allah en tout cas mënoon nañu ànd jàpp naa ne moo gën. am na solo.